yóbbu ko Cheikh Omar fukki at yéen ba ñëwee ba ca kër ga fekk góor gi fatu xam nga kër sëriñ ak kër bu mag léeg-léeg dafa nekk ñuy def def def yëfu yëfu yëfu teddoo xaw a xaw a galgal gaa yi gaa yi bëgg Cheikh Cheikh Omar fukki la taw mu ñu fexe ba gis ko ah gaa yi jël ay affaire neexale ko fukki néeg yi ah jël ci ay bagages jox jox leen gaa yi fexe ba góor gi génn maam Cheikh Omar Foutiyou Dieng dafa dafa ma alfa ñu ko alfa ñu ko la béy mu ko ànd sama sër fekk sër yi bare na lool ci biir ci biir bagage ñoo def sër yi sër yi jiwoon ba ci kanam Cheikh Omar Foutiyou mu ne ko waxuma sër bii kon nee na kon juróomi alaaj Maalik kon alaaj Maalik ci la fondé moo tax seen alaaj Maalik cëram feeñ na ci gën a adduna ah xam nga seen seen euh, yeneen salaasalaam cëram dafa feeñ te gën a adduna Cheikh Ahmad Tijaani cëram dafa feeñ te gën a adduna bii yéen wax ko seen alaaj Maalik wax ko bii seen baax wax ko wa allama Allaahu haadinaa nubuwwata benn way haadinaa nubuwwatahu wa kaana Adamu bayna nafsi wa nafsi kooku yoon tuddee ko moom. حب الوجود الذي أبدى رعايته رب العدل بين الماء والطين boobu Cheikh Ahmad Tidiane la ko xam nga moom dafa wax ni loolu dafay wax ni balaa ngaa naan naan ne fa mu ne ah xaw ma waaye dina ne naan ne mu fa ba ñu bind sa maam Adama nga ko nga ko nga egg ci moom nga ko waaye ci moom def ko ca la mu gën a mën a jëlee mu gën a jël Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ma àll maa ngi ko jël Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag tabarakallahu ah kon boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cëram feeñ na te boobu ganeegul àdduna Cheikh naa Tidiane itam cëram feeñ na boobu ganeegul àdduna waaye fële ca wàllu sonde cëru Seydi Hadji Malick Sy ganeegul àdduna tabarakallahu moo tax wax dëgg yàlla ah. loolu la mag ñi liggéey seen ajumaan yàlla baax nañu ko mu liggéey liggéey bu rëy bi Sénégal ba mu ba ba bu fekkee maam am daa maam Alfayda Mbaye la dinaa ko jógee su ma defoon ne te la joxee moom seen li daa sax jox ko max tuuti ba bagage yeeg la ca nekkoon yëpp mu mu ëpp ko jox ko max am am am alfa ñu mën a wax ko war a def dana la ko laaj incha allah taala wala wala taarix bu yaatu la boo xam ne bii mag ñi waxtaan nañ ci yàgg-yàgg ba tax na xool ñu doon sant yàlla bu baax. ñaan yàlla yàlla yàlla dolli sutura boobu nag gaaye boobu nag fa la Seydi Hadji Malick juddoo fa lañ ko defalee loolu fa la maam Fawa Mbele nekkoon fa la maam Fa ma am ma am Faye Mbele bi nga loolu nekk ba yaakaar naa ne kon wax dëgg yàlla suñu wootelee gaaye woote bu toll noonu ñun ñëpp dañ ko waroon bàyyi tuuti lépp dem wax Seydi Hadji Malick dëgg la ko bëgg nañ ko sopp nañ ko kon nañ ko soppal woy juróom ba soppal ko lu yaay ñu doon ñu nga xam lu lu lu lu njëm jàll moom jàll ndax moom la ñu dénkoon dénkaane bi jox ko mu jox ko suñu xaalisman kon nag tabaarakallaahu moo tax te suñu waajur ba war a dem tey fanaani gaaye te la seen gàmm bu fa jógee bu subaa te itam nag ku jur yërëm ku jënd sakkanal fu mu toll ci at ak fu mu toll ci wér ci yaram ah bu dëgg yàlla war na ko noonu loolu lañ ko sakkanal nag baax na fi de ah ni ni bakkan jekk ci kanam de noonu ci njaboot waaw. kon nag ah yaxanal ko ba mu nekk ba ci kanam a kanam yaakaar naa lu bëree bëri ci ay saaf yu mu tegu woon yu mu tegu woon war nañu koo jéem a teggil ndax fa tabaarakallaahu jamono bi moo ko wax dëgg yàlla ah, mu meloon ak euh, xam na ni mag dugg na te fa mag duggee doole commencé wàññeeku loolu itam war nañu ko bàyyi xel. di ko sóoraale jamono yu nekk xam ne suñ ko sóoraale du du ko mën a teew ah bu ko defee bu mënoon ñëw it ñun dégg ñoo xam ne rek ngan waaye koo xam ne dafa ñëw jiw démb ak barki démb mosuloo manqué benn yoon mosuloo manqué rek def xam ne ngànt la te ngànt loolu ñu nangu ko ko bu baax a baax xam ni fa tabarakallahu mooy suñu wóoy bu ñu woon ñëw mën ak muy lu muy bu ñu toogal di xam ne ci ndigal lañu toog rek doy ñu bi sëkk ndax moom du wuute benn pax si loolu la nga wax du ñu yebal des ginnaaw wóor na leen tey bu ñu demee tey laaj lu lu ëpp activité danañ nekk lépp ah, de A à Z ba tabarakallah kon nag ko lay sant ah di jégalu suñu waajur bi nag di nga xam Moustapha Cissé ñu ko ñaanal yàlla yàlla ko wér xam naa ne ñun dañuy gën ñu ñuy wax rek waaye xam-xam ba sama gënu ko waaye nag tabarakallah moo toog ci ay borom xam-xam yu mel nii di jàng ay ay di firi di jàng ay abyaat di firi ah tabarakallah a fi ba tax na kon ñu ngi leen ñu ngi leen bu baax luñ ci tàmm ak luñ ci yàq ñu xam ne suñu matadi la suñu gàtt xam-xam ak ndigal bi ñu indi fii rek ñu taxaw war a wax ndax it mënuñoo ñàkk wax ndax ku sañul bañ ak yeneen loolu la ñu ñu fa ko ñaan ah waaw bu dee li ci li ci baraada bi dëgg la kaas bi dëgg la ah fa sutura ah sëñ Aliou Sall di ko ndokkee bu baax di ñaan yàlla sunu mag sunu Sall yàlla doole ko defal Chiba ah ba démb tànk suba ba si amul téléphone la mu wax ni ñun dafa xaw a yaram day xaw a sukante ah waaw kan nga ñaan yàlla yàlla ko yàlla doole dëgëral ah di nuyu nag sunu soxna di soxna Seynabou Cissé ah di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaayam ah ñun ci ca Tiwaawan la woon parce que boobu sunu kër bàjjen Seynabou si jëlaa ko am naa gaa mu ne moom gaa dafa toog moom gaa ñëw ba egsi rek fa tabaarakallaahu dara du manqué yàlla yàlla fay ko mu mbokk mbokk mbay soxna mu ak soxna même na ñoom ñoom ñëpp tabaarakallaahu ñu leen ñu leen ziar di leen masawu di leen ndokkeel ak suñu jigéen ñi jógee léegi di soxna maam Faama si ah fa tabaarakallaahu soxna ñu ngi soxna Kano Mbaye ko ziar moom ñu kat ah moom mi nga xam ne mooy léegi daara ji tey wut fi man bi ñaan yàlla yàlla bu yàlla jàppale tey tey ñu ko jànni olof yi dañuy faral di wax ni bu ñu la joxee cër wala bu ñu la joxee pouvoir wala jox la benn nomination wala dara xool bi la ñaan naa la yàlla yaa woyofal yan bi sa bopp loolu la du ñaan bu baax yàlla yaa woyofal yan bi sa bopp du ñaan bu baax ndax yan responsabilité la suñ ko war a woyofal gën nañu wàññi responsabilité loolu baaxul kon nag yàlla yàlla yokk yan bi te dina kàttan boo ko téye nit ki doo ko yàlla bu yan bu weex na nga yàlla na nga yàlla yàlla ba ko kàttan. pour mu la yàlla lu ko yan. wa tabaaraka allahu moo tax. Euh, ngi koy ñaanal grand sëriñ ndax yoon yëpp borom yàlla di nga ñaanal monsieur le maire te itam borom yàlla ah di nga ñaanal suñu baay bi nga xam ni responsable bi mu dàlloo ak ñu mel sa sa baab mel sa si ab mel rek noonu la mel responsable bi yow réy na te yaram bi léeg-léeg fa tabaraka allahu te yàlla xam nga waaye nag daa yàlla yàlla soo ko bañ a bon la tabaraka allah yàlla na yàlla jàngal yàlla am na njaboot yàlla ñëw teg ak seen ngeen di dundee daal baax na fi mu noonu fa tabaraka allahu yàlla na yàlla jàngal ah am na yeneen programme yu ñu xaar ba am na benn kii bu mu waroon taxawee benn tàkkusaan fële ca yëmbal waaye nag weewu gàtt fa tënk bu jëlaat. Mhm. ku bu kàddu si ak advocation jiit nag amatuma benn programme. Mhm. benn programme moom ma pare. parce que baal naa waaye nag comme que ñu ngi may xaar fële ah maa ngi jégalu mbooloo mi rek. dëgg la ah, si àll bi ngeen jégal ma. Mhm. ah li ma góor gi waxoon laaj sama képp laaj kattan. ah bu ma leen daal di ko kon wax dëgg yàlla. li ma mën def naa ko ak sama yéene ak sama lépp. muy lu mu yoon sama dalaa yoon teew ci fii. dëgg la tabaarakallah kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ak sëñ Samba ñu ngi lay jaar bu baax di ñuy suñu wóojur aussi ci Ahmed Diagne si almaktum di ñuy imam Samba Diop it tabaarakallah bi nga xam ni ak naa ko ci Mourchid bi mu koy waxtaan waxtaan ñu am solo. ñaan yàlla yàlla ñëw yàlla doole barkeel xam-xam bi te doole ko wér doole ko kàttan mu yàgg a julli ak di teg ci njaboot gi ci ci yoonu siraatul mustaqim Cheikh Ahmed Diagne ñu koy ñaanal li ñu ko jox muy président euh, euh, coordination des Tidjane yan bu rëy la moom itam yàlla yàlla yokk yan jox kàttan bu mu ko téye ba yàlla ko yóbbu ko fa nga xam ne fa la ko mën ñu bëggee fa la ko suñu borom tere ñu bëggee fa la ko yàlla bëgg fa ko yéen ñu bëggee salaahu salaam kon ñuy sant ñu sant jigéen ñi nag te suñu baaxul tas la daan wax ni sama jigéen ñi ñooy fenn ñu gën tubéy léegi dama ci di jaasa léegi dama ci ilmaan lu góor ñi def ñu def suñu baaxul xam nga daal wax dëgg yàlla te itam nag si si am na wax ni bu du woon tey daayira yi tarixa yi faj bu dul woon fii jigéen ñi daayira yi faj. Ah. wax la ko ba pare tabaarakallah kon nag jigéen ñi taxawaay bu mu taxaw ak ah, am sëriñ yàlla may leen sëriñ daf seen diggante dëpp ak jëm ko bu tabaarakallah yàlla boole leen ku ku leen mën a demee ak yéen bu tabaarakallah la la la bëri am na ci waxoon suñu baax di ko way di mbay di morom mbay di maak ku leen ko def kenn ndox mënal gaa ñi mëneeg ñoom mënal la pare mëneeg yow loolu moom lu baax la ci ci jamono ci diggante yàlla ko yàlla xanaa ah, la ma la waaj a waxoon keroog mu ñëw si laa bëgg a si di ko ñaan loolu te moom gën a jox moom bu rafet bu mu bëgg ni ko daal ñëw si laa bëgg ni ko dama bëgg nga ñaanal ma doom bi bi ma gis daal yàlla ko muy sama soxna si laa bëgg ni ko bëgg nañ ci yow yàlla na ko yàlla topp mun ko déedéet bëgg ma ko doom mu ne ah mu ne ko am ah, na kon nag bëgg na teew yàlla ko yàlla sotti ba mu gën teew nga ni siiw mu ni ngéet ñenn ci taalam ndox kon yàlla na yàlla def ci dara ji Seydina Muhammad wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ndege Sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amin bii. mi ngi dugg ci oto. ñu daje. ci Printemps Sicap Liberté. ki mu àndaloon. Sëriñ Abdou ni ko. xale bi ñu ma ko soppe. ndege dafay dux. Davidão. É, então. Davidão. kuy dox man bàyyi naa dox bis ni tey ci sëñ Abdoulaye ñëpp yàlla ci la jaar. kon mbokk yi man sama teewaay fii mun naa ko layal loolu boole ci nag sëriñ Ahmada mii bu suñ maam sëriñ Moustapha Sy waxoon naa ko daawaati jéeg ñëpp dañ ko ni ko booy conférence bii Serigne Aliou Sall daaw dama nëbba conférence bi ñëw ma woon daawaati jéeg fekk ko fi waaye ren su ma ñëwee fekk nit ñi dem sax ma xam ne sama yéene sama diggante ak moom yàlla matal na ko waaye ndokk yàlla bi conférence bu mel nii mu রাখার ভিতরে waxtaan bu nekkee ci bisim bi macha allah yal na yàlla dolli sutura di wax rek loo leen mën a abonné rek ñu xeeb ko.